asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñun waa institut Al Houda fii ci Popenguine ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu ngeen gisee xale yi yàlla dogal na fi ñuy jànge dafa xat euh, moo tax ñuy sàkku ndimbal ndax buntu yiw bu ubbeeku la ñuy sàkk ndimbal te yàlla tax euh, bu ñu mënee defar li nga xam ne moo di tànt tànt boo xam ne xale yi danañ ci mën a jàng aussi tam ñu mën ci gën a yaatu aussi léegi nag kii bi li muy estimé nag li nga xam ne moo di tànn li muy estimé mi ngi dollu ci deux millions quatre cent soixante quinze mille ñuy sàkku ci mbokk yëpp buñ ko gisee tamit ñu partagé li nga xam ne moo di lien bi waaye aussi tamit ñu participer ci li nga xam ne moo di liggéeyu yàlla bi donc buñ ko mënee partagé ñu partagé ko waaye aussi tamit ñu participer ci li nga xam ne moo di liggéeyu nga xam mooy liggéeyu yàlla bi waaw bu ñu xoolee fii fii fii lañu bëgg def li nga xam ne moo di moo di tànt bi ñu waxoon nga xam ni dana soxla ciment ak tool ak li nga xam ne moo di ay giri yin ci mën a def donc xale yi danañ ci mën a nekk euh, jàng fi aussi ñi ngi ciy woo bépp jullit ñu jàpp ci li nga xam ne moo di liggéey bi parce que liggéeyu yàlla la waaye aussi tamit buñ ko mënee partagé ñu partagé ko bu baax te ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla yombal li nga xam ne moo di mbébét yi daara ji soxla na ku ko jàppale bu baax a baax. noo sant yàlla noo sant yàlla mu nga xam ne mooy aji wéet ci nguuram mooy buur bi nga xam ne mooy aji des bi mooy buur bi nga xam ne mooy aji sell ji tey aji set ji mooy buur bi nga xam ne bët du tege ci moom mukk mooy buur bi nga xam ne àtte na ay àtteem ci ay jaamam. te yooyu nga xam ne atte na ko ci jaamam mooy atte yoo xam ne du ca dellu siwaat mukk mooy buur bi nga xam ne séddale na ay wërsëgam ak ay digam ci diggante ay jaamam wërsëg yii mu tere ko yii mu joxe ko ñii mu bind leen texeel leen ñaa mu bind leen texee di leen yàlla yàlla boole ci ñim texeel te musal ñu ci ñañ texee di ñoo koy sant ci li nga xam ne jox nañu ko ci ay xéwal ndax li ñuy xéwloo ci àdduna amul kenn ku ko mën a joxe ku dul yàlla noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne amul benn buur bu yeyoo ak jaamu nga mën a jural njariñ ki koy jaamu ñàkk ngaa jaamu mën a jural lool ku dul la amul kenn ku bokk moom ak nguuram mbokk yi seede si ñuy seede seede soo xam ne bépp jaam koy seede lépp loo mi ko dagg ak jot noo ngi seede tey wóolu tey dëggal muhammad ab jaamam la ndawam la waaye mooy sangu bu yàlla joon ñëpp ci kaw suuf yàlla jullee ak sëlmal nekk ci moom moo ko ñooñam ak i saxaabaam jullee ak sëlmal boo xam ne dafay sax dakk ba kër bis mbokk yi ñu bokk fàttaliku nitu yàlla ci nit yàlla yi ñu bokk fàttaliku jàmbaari lislaam yoo xam ne liggéey ne diine liggéey bu rëy bu ràññiku te fes muy jëmu ju tedd di jaamu yàlla bu ragal yàlla te xam di boroom xam-xam bu rafet ab xam-xam waaye di boroom jikko yu rafet muy kan imaam Alioune Badara Ndao ñii nga xam ne mboo génne àdduna ba ci démb mbokk yi jëmm ji ku mat a jàngal aw xeetam la ndax jëmu yu mel ni mbokk yi dañoo mën a néew ci seenu xeet te la ëpp ci ñu mel nii dañuy ne ci biir xeet wa di fa dund amee njariñal xeet wa doon sagub xeet bi doon kenul diine xeet wa sàggane ba ñu xëy wuñ ci seen borom ak a bari ci sunu ci sunu ci sunu ci sunu ci mbokk yi imaam Aliou Ndaw sëriñu daara la woon bu yor ay daara di jàngale alxuraanul karim di ab imaam ame jumaa di xutba xutba ya siiw lool ci biir xutbaam yooya ay jàngale ak yeete ak jubbanti ak gindee nekk ca mu doon jaam boo xam ne dafa taxawoon doon gindi aw xeetam ak di leen won yàqu-yàqu yi nga xam ne ñu ngi jóge bitim réew tey jóge ci mboolem xeble yi jëm si ci réew mi te bu ñëwee nar naa détruire jikkoy askan wi nga xam ne mag ñi dañoo sonn lool lu nekk ñu daj ko seen digganteeg occidentaux yi seen digganteeg tubaab yi lu nekk mag ñi daj nañ ko ci réew bi fii li particulier borom borom bis bii nga xam ne moom la ñuy waajal muy Cheikhul Khadim lu nekk daj nañ ko ngir diine te mbokk yi jikko yooyu nga xam ne mag ñi dañ koo sonne woon ñu doon leen ci tëj di leen ci jàpp di leen ci tuumaal di yàq seenub der di leen génn seeni réew di leen tegi coono jikko yooyee tey jii ay safaanam ña ngay jóge biti réew nara a dugg fii ci suñu réew ba noppi bu ñëwee bëgg fee sanc imaam bii di imaam Alioune Badara Ndao kenn ci imaam yi doon xeex jikko yooyee ci la bokk muy jikko ñaaw yi ñu gis ci réew mbokk yi jëmm ji jàng alquran ba mokkal jàng mboolem fànni diine yi ni mu jàngi diine noonu la jàngi àdduna ba maîtriser ko moom imaam Aliou Badara Ndaw te loolu kuy suivre ay waxtaan xam ko ko ci bopp di borom xel mu ñëw di borom xel mu yaatu di borom gëstu bu rëy mbokk yi jëmm ji may wax imaam Aliou Ndaw xam-xam beeg gëstu bu yaatu beeg xel mu rëy mi yëpp jëmalewu ko ci lu dul wuti yàlla ak gindi aw xeram ndax xam-xam bi ko yàlla may bu fekkoon ni nit ku bëgg adduna la mbaa muy kuy rëbb adduna mënoon naa exploité xelam moomu tey jii ay gratte-ciel lañ koy limal ay oto yu dul lañ koy limal ay alal ci biir banque lañ koy limal waaye dafa jaay addunaam jënde ko ngërëmal yàlla moom imaam imaam Aliou Ndao mbokk yi imaam bi samp daara ana ñaati téeméeri nit ñoo génn ci ay loxoom ñoo xam ne dañuy man alquran mu jàngal leen xam-xamu diine raf ba bañ rafetal ko dugg ci biir société bi imam bi citoyen modèle la doon créer moom imam ali ba yàlla yàlla yërëm imam yi imam bii moom la état wu Sénégal teg ay tuuba ci kawam ne ko nitu fitna nga ana luñ tudde fitna ja muy xaalallahu xaala rasulullah imaam ca loolu rek la ko ñëpp dégg kenn xamatu ko ci la rek waaw nitu fitna koo xam ne nee nañu ab terroriste nga nga yor ay daara di jàngal alxuraan ak xam-xam ana kan ngeen gis fii ci réew mi mu yëkkati bu fitna ñu ne ci daara imaam ndaw la génn kan moo kenn mos nit ci réew mi mu yëkkati fitna ñu ne kee daara imaam ali ndaw la génn waaw ne xanaa koo xam ne fitna daa nekk ci yow nga yor daara di jàngale di jàngale alxuraan di jàngale xam-xam xanaa li nekk ci yow war nga ko mën a transmettre ci ay nit bokk ñun daal la ñu xamoon nga xam ne doon na ko transmettre ci donga yi mu yoroon mooy alquran ak sunna si yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi mosuñoo gis kenn kenn ku génn ci moom ami fitna mbokk yi imam bi ñu jël ko tëj ko ci kaso lu mat ñetti at lu jege ñetti at ñaari at ak juróom-ñeenti weer wala juróom-ñett ñu téye ko di jël press bi bu ñu xëyee di xëy ci moom di revue de presse ci moom di ko chargé nga xam ne boo xëyee diglu rajo bu ñu la jàppalee imam ba ba bàyyi da nga naan kii kay na faatu ci kaso bi ndax ñaawal bu ñu ñaawal ab daram ak yàq bu ñu ko yàq mbokk yi jëmu ju mel ni ñu téye ko lu jege ñetti at xëy xëy ko di ko defoo dara demal si kër subhanallah dama ne koo xam ne da nga ne ko yow nitu na nga ab terroriste nga nga ko dugal ko kaso lan la ca torture doon te mbokk yi imam Alioune Badara Ndao kenn tuumaalu ko ay wax ginnaawam lii nit ñi di wax ne doon na ko daj ci kaso yi kenn sosalu ko ko imaam Aliou ndaw moo ko doon nettali boppam parce que bi mu génnee ñaata ñaata plateau télévision la def ñaata émission la def ñaata xutba la def ñaata ñaata conférence la def imaam Aliou ndaw moo doon wax coono yi nga xam ne doon na ko daj ci biir kaso bi moom juróom-benn fukki at nga di ko dugal ci ay néeg taal fa sowaas sauvé néeg bi mu tàng jëpp ba mu jigi muy xooj ay yéreem ci ay ndox di ko sol ngir mën a mucc ci tàngoor yaram boobu nga xam ne néeg ba nga koy tàng loolu ku ko nettali imaam Aliou Ndao moo ko nettali boppam di ko sotti ay xet ci biir kaso bi mu di ko noyyi di wocc du nelaw guddi du nelaw bëccëg boole ca di def ay sonorisation ci ay noppam mbokk yi loolu kenn sosalu ko imaam imaam Aliou moo ko doon nettali boppam coono bu nit yàllaa ko defal sutura de waaye dëgg-dëgg li mu wax ne daj na ko ci kaso bi wallahi nit daj na lu ko yées faatu yàllaa ko suturaal ba génne waat ko bakkan waaye nit daj na lu ko lu ko yées génn adduna mbokk yi imaam ku mu tooñ bañ koy teg li ñu koy teg xaala lahu xaala ñu teg ne li li ñu la teg mbokk yi imaam du nit fitna nitu jàmm la dama ciy nettali ñaari anecdote benn bi mooy nëgër si daaw bi ñu màggalee màggalu Tuubaa ba noppi mu am jenn fitna joo xam ne yeewu na fii ci réew bi ci diggante ahlu sunnati wal jamaa ak ñenn ci yoonu murid bi ba ay ndaw jóg ne dañu attaqué ay nit man loola yëguma ko imam Alioune Badara Ndao moom ko yëgal fajar teel la ma woo téléphone ne ma sëñ ma wax damaa dégg ci dëkk seen dëkk boobu Touba ñu ne dafa am ndaw ñoo xam ne jóg nañ bëgg a dal ci kër kër diw ak diw yàq seeni alal te dañ daa kilifa guñ ci tudd ne moo leen jox digal ma ne ko ah, loolu de ko waaye kilifa googu nga ma moom sama wëllëre la danaa ko woo laaj ko ba xam loolu naka la def ma coupeek imaam Aliou Ndaw woo kilifa gi mu wuyu ma ne ko imaam Aliou Ndaw bu kaw Kaolack dee ma doon woo sànq nee na dafa dégg ay fitna ci biir dëkk bi yoo xam ne dañ caa tudd saw tur te xamut loolu nu mu demee moo ma doon ma ko laaj kilifa ga ne ma wallahi laasim nii ngeen ko déggee noonu laa dégg ay audio la ay nit yónnee ci laa ko yëg waaye du maa jox kenn digal ma ne ko ah kon day bay boo nga jóg te gaaw te loo ci mën a def nga def ko mu ne ma mu ne ma danaa ko lijjanti ba naa la woowaat ba mu ca noppee moom kilifa googu woo ma boppam téléphone leeral ma nam demee lépp ma woowaat imaam Aliou Ndao leeral ko ni mbir ma demee mbokk yi fitna joojee imaam Aliou ndaw mooy ko ca summi wut aw dàllam mooy ko ca yolomulut ak laxasaayam kilifa gum ci war a jokkoon fii ci dëkk bi jokkoon yow man mat naa ci seede ndax kum fi soxla te yorut numéro man la doon ma lijjanti numéro kooku jox ko sëñ bi kii nit fitna la ahlu sunnati wal jamaa yañ ko seqaloon kilifa gum ca war a waxal wax naa ak ba suñ borom indiwaat jàmm ba mbokk yi ndax nitu fitna dana dox jéego yu mel nii benn la bi ko ñaareel mooy manifestation yii naroon a aw am le vingt sept juin la vingt neuf juin pouvoir bi taxaw ne kenn du kenn du fi manifesté opposition bi ne kenn mënuñoo tee manifesté wu mbokk yi fitna joojee bu yew woon bakkan yu bari danañ rot ci réew mi deret yu bari danañu tuuru alal yu bari danañu yàqu imaam ali ndaw mii maa ko ci xam mu sol ci aw dàllam kum mën a jot ci kilifa état bi xam ne mën naa wax ak yow jot na la wax ak yow ngir ngir fitna ci fay kilifay opposition bi kum ci mën a jot jot na la wax ak yow ngir fitna ci fay kum jàpp ne it cee wax fexe na ba jot la ne wax ci wallahi laa ilaha wallahi laa wallahi ladi laa ilaha gayru ba ci kero biñ ne tey jii la la la la la vingt huit suba la vingt neuf ca ngoon la ma woo téléphone ne ma imaam gaawal nga defu audio man de lu ma xam wax naa waaye ñii ma gis ne niruwuñ ne nar nañoo bàyyi defal ab audio ñu tasaare ko léegi ma daal di dugg sama néeg defu audio yónnee mu diglu ko ba noppi delloowaat ma ko ne ma ah kay li mën ñu doon koo tasaare suñ indi jàmm moo ne mbokk yi ñaata borom yi xam-xam ñoo ne ci biir réew mi ñoo xam ne lii imam ndaw doon dox intéressé wu leen woon moo ne bu ko neexoon ne mbirum politique la de sama yoon nekku ca naa leen bàyyi ñu politique seenu politique waaye imam Aliou Ndao dafa xam ne réew mi aw réewam la bu tàkkee moom la tàkkal bu baaxee moom la baaxal mbokk yi jëmm ji ana nan nan lañ ko war a mën a jële yóbbu ko prison jël presse bi ñu di ko sarse di yàq ab daam ab terroriste la day fekk nañ ci këram nangam ci ay milliards dégg nga fekk nañ ci moom ay ngànnaay ba ca mujjantal ga ñu ne ko li la doon tuumaal dara am ci defal nga ñibbi sa kër wax lii lu ko gën a ñaaw waaye nag mbokk yi ñu xam ne diine ji di diine lislaam lii la baaxoo ndax mooy aw yoonam yaakaar naa ne ñun ñëpp dégg nañ ko ci ay kàddoom ci fan yi muy wax ne xeex bii ñuy xeex la gën a néew ca la ñu ko jox mooy sunu bakkan ak sunu alal loolu yaakaar naa ne wax jooja kàddu yi ñu koy tasaare ñëpp a koy dégg te mbokk yi loolu ayat alquran la mbokk yi aljana ku ko bëgg di wooteel yàlla ci diineen ji bay boo nga xam ne sa woote boobu bu dee dëgg la ci yow dana ànd ak ay firnde dana ànd ak ay coona inna allah ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna suñ borom nee na jullit ñi nga xam ne dëggal nañ te di ma wooteel ci sama yoon nañu xam ne day aljana jee ñu bëgg ñaar leen laa leen koy jaay muy seeni alal ak seeni bakkan kon mbokk yi ñu jël sa bakkan ci diina du gàcce mukk ñu tëj la kaso ci diina du gàcce ayibal la ci diina du gàcce sayiduna muhammad moo ñu indil diine lislaam jii mbokk yi rasulullahi lu mu dajul ci diine ji amut toj nañ nañu boppam damm nañu bëñam tuur nañ deretam tuumaal nañ ko nee nañ ko ab dof nga nee nañ ko njabarkat nga nee nañ ko seqal matut génne ko màkk gi nga xam ne ca la gën a jamono mbokk yi yonent yàlla muhammad gën ne daj la koo jël diine kon nag képp koo xam ne taxaw nga teg sa tànk fa rasulullahi tegoon tànkam mënu la ñàkk mukk la yonent yàlla muhammad doon gis kenn koo gis mbokk yi saxaaba yi àndoon ak yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi dañ leen doon lakk ci sawara ngir bàyyi looleen seen diine di naq ci biiru ndox ngir bàyyi looleen seen diine am na ci ñooñ dañuy taal ab taal tëral leen ca taal ba di leen séendal te musuñu musuñu deltu ginnaaw ci seen diine mbokk yi am na ci ñoo xam ne dañ leen yóbbu ba ci daj ba ci doji ba ci doji ci ginnaaw dëkk bi ci jamonoy tàngoor doju tàng jër ñu di leen teg ci kaw doj yi di leen séndal ba seeri gari si yaram di ruy di rogalaat ci doj subhaanallah moo tax suñ borom nee na am xasibtum an tadxulul jannata walamma yatikum matalu ladina xalaw min qablikum moo ndax yéen da ngeen jàpp ne da ngeen di dem aljanna te la daloon nit ñu njëkk ñu di leen dal déedéet massatuhumul bazaau wa darra wa zulzilu xata yaqula rasul walladina amanu maahu mata nasrullah ay fitna ak i coonaaki musiba ñoo doon dal nit ña leen jiitu woon di dal seeni yonente ba seen yonente yeleen daa jiitu sax jiite sax dañ daa ñëw di wax ne mata nasrullah kañ la ndimbal yàlla di ñëw ci ñoom yi lislaam ak fitna ñoo ànd képp kuy dund yàlla te dund yàlla gi nga dund yàlla wér ci yow bay boo nga seen coono bay boo nga seen fitna cheikhul xadim mii di suñu royuwaay bokk yi mag ñim àndaloon fii ci mbàkke bawal ñu di leen toraxal di lakk seeni kër di leen dóor coono yi nekk ñu di leen ko teg muy kuréel bi njëkk ba njëkkoon a ànd ak moom bu ñu mosaa ñëw di ko jàmbat coono yi leen seenu xeet di teg daf leen wax ne leen ah yéen kat bay boo ngeen bàyyi xel ne saxaaba yi seen bàyyi islam te lu nekk daj nañ ko ci lislaam ba diina ji ñun ñu jot ci kon nag bay boo ngeen xam ne lu saxaaba yi dañoo rek dañu ko rek lii Seexul Xadiim daf ko daa ko ay mbokk yi xabaab ibnul arat xabaab ibnul arat kenn ca saxaaba yi la woon xabaab ñëw na fekk yonent yàlla muhammad ci keppaaru kaaba gi waxtu takkusaan keppaaru takkusaan ga te la yonent yàlla muhammad sóonu jël manto bi mu soloon lal ko sóolu ci xabaab ibnul arab agsi ak yi jooyam ne ko yaa rasulallah ala tad'u llaha lana ala tastansiru llah lana xanaa doo ñu ñaanal yàlla mu xettali mu xettali ñu coono yi metti na lool musiba yi ñuy teg metti na lool natt yi ñuy teg metti na keroog yonent yàlla moo xam ba mu jógee dafa mer ba mer ni feeñ teg xar karam ba mu ne ko xabar inna man kaana qablakum kaana li yuqtaa bi rajuli fa yuxfaru lahu fi l ardi xufratun wa yujaau bil minshaari fa yudamu ala rasihi fa yujalu firqatayni maa yasrifu dalika an diini mu ne ko xabar xanaa xamuleen ni nit ña leen jiitu woon am na ca ñoom ñoo xam ne dañ daa jàpp nit ku gëm yàlla ñu ne ko bàyyi sa diine mu lànk ñu gas tax suul ndigg la ba ca cati tànk ya jël ab si teg ko ci kaw bopp bi di ko siyee ba jëmm ji ñaari def ñaari gaal fa yu jaalu firqatayni waaye nee na maa yasrifu ko am diini loola dawul tax seen diina lu toll ni tarfatay ayni mejj ci keroog lañ leen gën a sonal keroog lañ gën a bëgg yàlla keroog lañ ko gën a topp moo tax imaam Aliou Ndao ñu la ci gis keroog bañ ko bàyyee génne ko ci kaso ba ne ko di foo dara mu dellu ci njabootam lam doon wax bañ dugal ko ci bii kaso ba ba génne la ko gën a mën mbokk yi li mooy mbokk yi jëmu ju mel nii ci lay tëje génn àdduna di jàmbari lislaam di kenool diine sunu état wu Sénégal déggu leen benn yoon fuñ ci doxe benn jéego mbaa ñu jaale ko la ca am kay mooy talaata la génn àdduna ñun ñëpp dañu koy xëye xibaar bi sénégalais yëpp amu tiis amu métti am njàqare ba sëddi àllarba ca palais de la république la organise ay ay ab ab manifestation di fa tëgg ka way ak a puuka réew ngir lan ab coupe du monde boo xam ne lions yi dañ caa war a dem waaw mbokk yi ndax coupe du monde boo xam ne euh, gaynde yi dañ caa war a dem football yi ca moo gën a rëy faatuk imaam Aliou Badara Ndaw ci réew mi ah, ndax moo gën a rëy mu faatu talaata kenn déggu leen yéen ci yàpp ba set ba ñu woote ay xumbeen ci biir palais de la république waaye suñu borom ku xariñ la mbokk yi ku mën a àtte la te ku sew ay mbir la moom yàlla xoolal xerañte gi ñu def dañoo xëy alxemes démb la reine Elisabeth ca Angleterre garab britannique faatu bokkuñu ak moom continent bokkuñu ak moom diine waaye sunu sunu sunu sunu état moom bind na leetar ni ñu ngi ñu ngi jaale ren boobu nga xam ne ma nga faatu ca Angleterre waaw loolu moo teewoon mu def ko ci imam Alioune Badara Ndao kilifa gu toll ni moom di kanuy diine di kanuy sam liggéey bi mu liggéey ci réew mi lépp mu faatu di ko sabantal di ko foyee mu mel ni ay weñ aw weñ a faatu waaye nag ab yéefara dee ab yéefara dee ca bitim réew ñu bind leetar ne ne ne ñi ngi koy jaal tey mettulu ak faatoom subhanallah waaye nag dañuy bëggee moom faatu ci biir réew yaxfirullahu li wa lakum wa li muslimina